abonné leen ci suñu chaîne YouTube su ne. boo gisee ñu jox la kàddu gi c'est parce que tu tout simplement tu fais partie des combattants auprès de la presse sénégalaise vous avez la beaucoup euh, Biagui merci beaucoup Oumy di nuyu suñu doyen yëpp di nekk tey jii teew euh, ci euh, li nga xam ne dañ ko jagleel Walfadjri wante euh, Biagui da nga wax sànq na mbejum kanam. nit moo koy fajal boppam te dañ ca war a yokk bu amee fulla ndaxte lii ñu gis ku ne mën nga ci def sa appréciation et c'est des questions simples est-ce que ci état lañu nekk la réponse et oui est-ce que secteur u presse dafa am ay textes ay loi yu koy régir la réponse est oui alors mën na toog bureau ba neex ko mu jël décision ne day retirer licence Walfadjri la réponse est non donc ñun ñëpp dañu war a jàpp ne lii à la limite soo koy wax ñun suñu propre confrère ñooy wax ne wooy wax ji ëpp na mais c'est du banditisme d'État mënoo ñëw toog sa bureau xam ne yow pour nga retirer licence Walfadjri pour nga tëj tele wala rajo am nga yoon boo xam ne ci wàllu yoon droit foofu la war a mën a jaar ba nga yegg ci tëj ko nga xëy jël say force de sécurité yóbbu ko buntu groupe de presse retiré ne da ngay wax définitivement mais maître Moussa Bokar Thiam d'ailleurs je doute je doute de ses diplômes parce que bu nekkoon am na diplôme droit dëgg-dëgg ñaar mooy mën a am am na diplôme d'état mu bàyyi ko fa di def yëfu saay-saay te nag il faut ñu bañ a réeree mbir un ministre ak ku mënta doon amul fit ne day ñëw retirer licence groupe de presse bu Walfadjri te kilifaam sant ko ko amul fit boobule parce que xam na conséquences yi xam na ne bu ko defee la mais dama ne nañ waxante dëgg te bàyyi di naxante ñun presse bi ëpp ñun presse bi ëpp nañ lii kon bu ñu waxee ne dañoo war a def mobilisation soit dañuy assumer ne nous allons ba ñu restituer à Walfadjri sa licence ñu def ko ci fulla nag ci fayda ci ngor ci jom ak ci fit parce que dañ ñoo tooñ lii tooñu mënu ko gën a rëy après par la suite la ñuy def woon nañu ci ay bureau di jéem a négocier on va voir ñu def ay médiation way on va voir loolu te liñ la teg jaaduwul méngoowul ak dëgg kon il est temps je lense encore un message à nos xeex bi du xeexu Walfadjri ba ma dalee ñu bari dañ doon wax mais mu leeroon mën a biir mën a bukki bi ma matt dina mattaat mattaat mattaat da doon kon dafa jot ñoom fulla suñu bopp bu nekkee ne liggéey bii ñu ñoo ko tànn am rôle bu ñu war a joué ci démocratie sénégalaise yàgg koo joué nag suñu grand doyen Babacar yàlla na ko yàlla yërëm dafa ma mës a woo ci biroom mu ne ma ñun suñu génération benn combat lañ amoon ma ne ko ban ci mu ne xeex ba démocratie am ci Sénégal yéen seen génération mooy yéen a war a protéger démocratie boobu pour jouer parfaitement votre rôle léegi nag loolu mooy suñu mission soit ñu accepter ne dañuy dem li ñu teg comme plan de bataille ñu d'accord ko mais su ma gisee ñuy wax ne dañuy waxtaan parce que euh, patron de presse yi wax nañ ne nañu discuter ci loolu mais ñun fekkee nañu taw ma jambal te ñun ñoo taxawoon gàddu xeex bi def nañ fi journée sans presse def nañ fi journée sans presse boo xam ne en boucle on avait un CD bu ñu remettroon toutes les rajo de minuit jusqu'à minuit defuñu woon lu dul teg loolu en boucle benn rajo benn journal génnutoon léegi lan moo war a tax lii nga xam ne moo gën a garaaw ñu nangu ko coché na ko ñu ne dañuy waxtaanee ndax war na def journée ba moyen de lutte la ñu am après amuñu beneen moyen de lutte kon je pense que suñu doyen yi li ñu def seen wareef la ndax wareef moom boo ko deful du la mës wàcc ñëw nañu nekk suñu ginnaaw duñu boot pour ñun ñu war a am fulla bi ak fayda bi taxaw nag ne lii day dakk moo ko gisul les télévisions internationales ont tourné ça en boucle ñëpp gis ko le Sénégal est devenu la risée du monde il faut le dire il faut avoir le courage aussi de le dire à haute et intelligible voix nañu delloo groupe Walfadjri dafa ñaaw que groupe Walfadjri ca Abdoulaye Wade ñu koy def percussion parce que euh, persécution parce que bu leen fàtte ne Papa Sidi Lamine Niass demoon na organiser manifestation place de l' indépendance parce que boobu c' est le pouvoir de Wade président Macky Sall toog ñu ubbil ko plateau muy wax lu ko neex tey jii moom ci boppam ñu gisaat la loolu moom régime il est allé plus loin sans élégance républicaine sans élégance tout simplement contre le groupe Walfadjri nañ am fulla suñu bopp bu ñu amul fulla suñu bopp nag lu ñuy wax rek bukki bu yebee waxambaane ca doxin wala di sant ñëpp di gërëm ñëpp. merci Pape Alé merci muy lu am solo loo wax fulla ak fayda moom nit a koy eh, jox boppam duñ ko jënd ca marché ba duñ ko jënd au champ fi mu toll nii nag wax na leneen lu am solo mooy ne Sénégal bëtu àddina si yépp a ngi si kaw Sénégal di ñu seetaan. te fan yii moom gàcce international lañu nekk di dund ndax lii yaakaaroon nañ ne mën na xew bépp réew ba mu des réew bu mel ni Sénégal ak li mu def ci wàllum démocratie li mu def ci wàllum liberté de la presse gàcce googu nag ñun jox nañ si sunu teggil nañu sunu wàll ci natt bi ba mu mat sëkk waaye dinañ leen ko delloo wan leen ne ñun tam am na lu ñu tekki ci réew mi te réew mi mënul dem sans journaliste yi li koy wane nag mooy ñun nañu jóg nañu jóg takku won leen ne fi mu toll nii toogaay amatul te lu mu leen jaral nañu ko jaral mille ak léegi lan moo fi changé wala fi de changé wul xaw ma lan moo changé 2012 lan moo changé ak léegi wal fu changé wul la mu doon def 2000 def ko 2012 moom la def ci vingt 2024 bi donc problème bu amee nañ ko xool feneen waaye buñ ko xool ci Walf ci ñi nga xam ne jóge nañ bitim réew ñëw di xool lan moo xew ci réew mi maa ngi leen di signaler les observateurs de la mission de l'Union européenne ñu ngi fi ñu ngi nii ñëw xool li xew si réew mi muy kon nag loo xam ne du sag ci ñun du sag ci ñun lu doy waar la ci loo xam ne dañ daan voté depuis le 19e siècle ñuy voté problème mosu fi am médias yi depuis de nombreuses années ñu siy joué seen role tey ñu bugg leen ko xaañ muy loo xam ne nag il faut ñu jóg def ci li ñu mën mbu pour mu dakk euh, Sambu bu ñu jógee ci Pape Alé Sene Info International Sene leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér wóor